affaire bourse yi nekk na loo xam ni wax dëgg yàlla at bu nekk mu ñëw te comprendre nañu élèves yi ndax euh, bourse boo xam ni dafa la war a euh, dimbali si sa njàng parce que concours betes bi concours national am na élèves yu jógee Ziguinchor ñuy jógee Matam ñu jógee Kédougou ñëw di jàng si fii bourse bi wax dëgg yàlla dina leen dimbali mais bourse bi su ñëwee ba avril teewul euh, mën na indi ay gàllankoor moo tax comprendre nañu leen. ci seen ñaxtu et yaakaar nañu aussi état bi dina jël ay mesures ba nga xam ni lii nga xam ni chaque année mu ñëw di perturber suñu njàngale bi nañ ci am nañ ci am solution. donc euh, filière boobu moom li ñuy wax filière agriculture moom BTSM ñu ngi koy doog a sas euh, daaw euh, xam nga filiere moom boo koy démarrer toujours dina am ay difficultés mais loolu lu ci gën a lu ko gën a taral mooy. Euh, si seeni formateur daf ci am ay jigéen mu am ci ñoo xam ni nag dañu tollu diggante ba nga xam ni mënatuñ ñëw école parce que dañ nekk ci congé mais professeurs yi fi des ñu ngi def ay sacrifice pour combler euh, loolu mais doyagul euh, ñu ngi jokk ministère ñu ngi ñuy waajal yónnee un professeur boo xam ni dafa nekkoon en disponibilité léegi moom dafa bëgg ñëwaat waaw yaakaar naa ni kooku daal su ñëwee. loolu dina dina sotti waaw incha allah. benn proviseur du lycée technique professionnel monseigneur Françoise Davy Ndione de Thiès. donc depuis mercredi euh, les apprenants de du parce que nous recevons des BTS euh, qui sont boursiers euh, sont en mouvement d'humeur parce que jusqu'à présent ils n'ont pas reçu de bourse. L'État a voulu Euh, euh, soulager, les soulager un peu en leur donnant une avance euh, de cinq mois pour les premières années et de 4 mois pour les deuxièmes années. Mais ils ont refusé, demandant qu'ils veulent la bourse et dans sa totalité. Donc c'est ça qui a provoqué ce mouvement d'humeur. Et depuis presque une semaine, nous n'avons pas travaillé à cause de cela. Voilà, donc, euh, vous savez, ici, nous avons 19 filières. Euh, parmi ces 19 filières, il y a une filière qui a démarré cette année, qui est le BTS en production végétale et en conduite et gestion d'une exploitation agricole. Alors, dans cette filière qui vient de démarrer, euh, c'est vrai, il y a des couacs liés aux, difficultés de démarrage, mais surtout des couacs liés à la disponibilité des formateurs parce que parmi les formateurs, il y a quatre dames et les trois sont en état de grossesse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des modules, euh, malgré le sacrifice des professeurs restants, il y a des modules qui, traînent un peu, mais nous sommes là-dessus. Voilà, donc ça, c'est une filière sur les 19 euh, qui, a, qui difficultés. Euh, nous avons contacté le ministère et déjà il y a un formateur qui était à disponibilité, qui a terminé sa disponibilité et qui veut venir au lycée, c'est un professeur d'agriculture qu'on attend. Je pense que s'il se présente, je pense qu'on pourra rapidement régler ce problème de, de